revenons à nos moutons. dem ma def benn vidéo ne damay ragal médical am ci. saaga nañ ma gis naa ko. Mhm. képp ku ma saaga jërëjëf sama ndey ja ci bar sàq moom ku mën a saaga moom amul problème di ngeen fa daje. Mhm. mais mhm. ñun communicateur dafa bokk ci suñu responsabilité. ñuy alerter. yaa may dégg. dafa bokk ci suñu rôle. Mhm. ñuy prévenir. Mhm. te dañoo dem ba mu yàgg ñu for ci weewu béy ni am na médical buy xeeñ. boo xoolee vidéo bi ma def duuru dama ko def tardivement. Mhm. am na médical buy xeeñ ndax buñ sañoon làmb ji temps temps temps temps temps j'ai tout suivi. waaye calcul boobu yëpp ñuy def pour toxal bis bi suñ ko defee danañu tooñ sénégalais te làmb ji dootul safe du dama bëgg tey dama bëgg du du ñu jël suñu temps ñu leeral pour euh, certains de ces commentaires négatifs négatifs impolis mhm. et fallacieux man Ama Baldé dundul lu ma magam Jules Baldi dundaluma mhm. joxuma ma lekk joxuma ma naan su ma rakk la mhm. moolu xarañ loo mhm. dundaluma joxuma lekk joxuma naan fayal ma sama leer aw ma intérêt faral ci kenn ay góor lañu comme man lépp lu ñu mën a am rek yàlla mën na maa dimbali ma am ko mais su ma waxee nañuy déglu su waxee xam nga ñun waa bii pro dañu garaaw. Ah, la nag dañuy titré loo xam ni. Mm. da koy xool dof mais démb dama dànkaafu. lobby yi nga xamante ni ko ñu ngi ci làmb ji di nas ay pexe pour pousse combat bi. wax ji leer na. dégg naa dëgg. buur nee na. Mm. démbam ba mu def ca senegal bi ne combat bi est-ce que médical lu ci am. wala est-ce que duñ ko puus damay dànkaafu lub yi wër làmb te bëgg puus bés bi ñu xam ne am nañu taxaw xam wala sentir li ñuy nas ak di ko nocci pour puus làmb ji. kon du la neex rek nga bëgg. déedéet Ama Baldé dafa bëgg dugal médical. déedéet ah, duudu hmm. am na médical bu ñuy nas ak nocci pour dugal ko ci làmb ji puus bés bi. pour de raison yu ñu bari xamagul mais ñun xam nañ ko. ok mais man buur dama bokk ci ñi gëm ni. Hmm. Ama Baldé Modou Lô le 5 novembre bu doon taw ay xal sax la war a daje mu jeex. ok loolu mooy benn vidéo bi léegi defe naa euh, ñiy commenter ak di saaga. di léegi defe naa ne comprendre nañu. Hmm. ma ñëw nag ci benn vidéo bi. Hmm. nee naa la ku ne mën naa wax wax ji du safe waaye buur saa bu waxee waagaan réew mi réew mi jolli buur ba mu defee vidéo ba démb hmm, ku ne génn lu ne dégg naa ku ne génn wax barki yaa rasulillahi baara hmm. ba pos caaro yi hmm. fu ma taxaw mi dul ama bale bëri nañ supporter ci réew mi ñëpp ko bëgg léeg-léeg dudu ñëw taxaw fenn jël poos ndeysaan nit dawal oto ba samay tànk ne ma buur li nga wax foo ko teg. foo ko teg ndeysaan. je pas dit pour décourager loo Ama Balde. Mm-hmm. xam naa supporteru Ama Balde yëpp moom la ñuy xaar ma tontu leen waaye Doudou. Mm. bu ma gisul ñu bind ay Ama yee rek du ci tontu. non <laughs> <laughs> non ñëw si ñëw si. bu ma gisul waa Pikine di bind Ama yee di ko bind ci commentaire yi man buur duma tontu. <laughs> kii nee na ma buur ci bag bi. waxal li ci féeri bi. féeri beeg yooyu. du li féeri bi. Mhm. dama am lu reeloo. Mhm. gars yi dañuy <laughs> xeex biir féeri. Mhm. ba police gambien yi muus. bàyyi ama ak otoom mu jéggi. ñu képp lenn ci ay oto yi ama àndaloon képp mu ak ñi mu àndaloon waaye du xam nga lu neex. Mm. liñ fa nekk di xaar féeri bu ñu ñun ñëpp. gars yi fair play lañu teg. kenn xosewu fa kenn kenn màttu fa kenn kenn gajju fa kenn mujj gi sax ñoom ñoo doon petit camp yore ay bal di paasante ak njub man leen kon yéen déedéet loolu ci biir féeri bi la man leen ko yéen ñun ngeen yàpp ndax bu caméra yi tàkki ngeen di calli calli tëb di dal mel ni ay xar yu lekk ripaas <laughs> te yéen a ngi daje ci féeri bi def ñaari mbooloo leen wër lépp ndox la ngeen def pat ak organisé kon ñun ngeen du noonu la jégee ci bag bi ñaari ñaari kaay ndeysaan Abdou Bakhoum nekk fa ak Père Ndiouga bu bu ko Père Ndiouga nee Modou maam moo reyoon gaynde ga ca gaynde gaynde ga ca tax ba tey ba jaay Abdou ne ko diggante Kajoor ak Bawol àll boobu gaynde àll boobu gaynde mosu fa am Père Bakhoum di ko ndokkeel du di ko ñaanal ndax moom euh, li may di wax man chaque jour mm-hmm. ku ci mel ni Abdou Bakhoum wala ku ci mel ni añam Jules Baldé hmm. xam nañu li may wax ci làmb hmm. euh, dañ di ay géwél di ay communicateurs yu wax ci làmb hmm. euh, bés bu ci nekk dafa am lu muy laaj ci côté communication bés bu ci nekk dafa lu muy laaj ci marketing buur dafa bokk ci ñoo xam ni ñaa ñi nga xam ni dañu war a taal taal bés du dem bi ma nee Ama Baldé état bi ma ko gisee doyuma dëkk bi ñëpp lamb ji lamb dundaat. Hmm. Balla Ndiaye naan mboro yaa ma amel foofu chèque un million. ci laa xam nag duudu. Hmm. doole ji Ama Baldé mel. Hmm. gis nga waa Pikine yaa ngi commencé. Ama yee Ama yee Bouba Cissé maa ngi lay nuyu. <laughs> jërëjëf Mor Ndoye nan na nga xamul dara jërëjëf Mor. marhaban bi kam kontaan naa ak kan duudu. <laughs> Bouba Cissé. Bouba Cissé waaw xam nga Gambia la waaw Gambia la Gambia la eh, Diallo Laaji mhm. ndeysaan Jaaliloo mhm. ah Babacar Kanji mhm. kii mu ne lamp lamp bu Serigne Touba eh, borom LBST ñoo koy nuyu di ko ziar eh, di ko ndokkeel xam Aliou Ba maa ngi lay nuyu Aliou Ba pula cuma lamdo mi faamaaru ki maa wajji taama nee mojji baabu mojji alpingal bora taama ndeysaan Modou Lo Euh, borom Tawfekh TV. Modou Diop gars yi yéen ñëpp Modou Diop. Euh, gërëm euh, Maroc ngi leen di nuyu. Modou Diop nee na Ama yee gis nga. gis nga Babacar Kanji xoola gis gis nga waa gis nga waa Pikine Ndour ñu ko taxawee. Babacar Kanji nee na yaa mën yaa ëpp doole. damay seen morom. man bi ma nee bi ma nee Ama rek dëkk bi ah xam nga day saan waru événement affaire bi xarañ loolu la. léegi Ndour mhm. li tax ma toog ni dëgg-dëgg. Mhm. état bi ma gisee Ama Baldé doyuma. loolu mooy wax ji duudu sama xarit ko si Bakary génn dóor ma ay kama seeni may xeer waaye coach big respect ñu nag ñoom ñoo bokk benn benn benn li lay wan nii am nañu démocratie suñu biir coach Bakary ca France Dev lamb diaspora Cheikhouna coach Jabang Fadam 2. ñoom ñoom ñoom Malick. super jamono. ñoom Ndiaye. ca Gambie. ñoom Buur Géwél. ñun gars yi ñooy bokk di defandoo live chaque jour. ndeysaan. donc waaye li lay wan démocratie. mooy bi ma waxee coach Bakary. Mhm. génn daal sama kaw argumenté ko nangu naa ko. Mhm. donc man damay joxe samay argument say argument rek. Doudou Ama Baldé Modou Lo ba ñu njëkk daje ca Yeba. du sama dafa tàng de te boo ma suivreul naa la songo <laughs> waa ñëwal dañu daje ca yeebaa ñu jàpp seen bés ba nekk ci seen dernière face to face duudu keroog Ama Baldé bi mu taxawee duudu ma xool fii Ama siggi ba tolloog Modou Lo dama doomi Falaay bi jekk na te billaahi wallaahi taala duudu boobu boobu Ama Baldé jekk na ba ñuy dëkk parcelle unité un ba vingt un xam na ni Ama Baldé jekk na ba Modou Lo muy bëreel xam ne Ama Baldé jekk na waaye Doudou ci diggante bi Modou daf fi blessé Ama Baldé blessé fi nañ ma déglu ak xel ak am épaule du mm-hmm. simeeku Ama Baldé am déchirure musculaire maanaam pooj bi mm. yàpp yi moo xar ama continuer ay entraînement am mm. ba ñu jàpp combat am ak Bordeaux mu amaat report jàppaat ko mm. jàpp ko maanaam ni situation yi doon varier noonu la taxawaayu Ama Baldé ci entraînement doon varié ok ñu ne jàpp nañ sa combat nga ngay entraîné entraînement bu intense mhm. ñu ne bàyyi nañ sa combat nga wàccaat waaye ñun xamul lu ma jubluwoon dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. tey ma wax la ko Ama Baldé dafa demoon ba génn bés bi loolu ma bëgg ngir yàlla amaat Baldé del si waat ci bi te gëm naa ne su ma waxee lii ma wax man buur géwél barki alquranu karim ama ak ay bokkam dañ jël soit ci bés bi kon yow buur jàpp nga ni Ama Baldé dafa réeréewu la lamb ji bàyyi benn instant mutloo hmm. mu ngi jël le dessus ci moom ci bés bi laa te duulu ñi tëgg làmb ji Ama Baldé nekkaat ci bés bi moo leen ko gënal ndax bu nekkee ci bés bi àdduna ñooy màbb topp ko duulu amateur yi lamb yi laay wax waxuma supporter yi de hmm. dañoo namoon Ama Baldé dellusiwaat ci bés bi te man buur du delloo delloosi naa ko ci bés bi kenn du yow lii laa bëggoon te ba ma ko waxee am na loolu Ama Baldé mii ak ni mel ak ni toll ci ambiance ak fi combat am ak Modou Lo toll fi ko toll ak ni Modou Lo mel Ama Baldé dina ñëw ba fii di caaxaane bés Doudou Ama dafa war a bokk ci bés bi dafa waru a bés bi hmm. ndax bu bokkee ci bés bi dund bés bi rek làmb moo ci gan wallaay dëgg la benn stratégie de communication la woon ils hmm. n'ont hmm. leneen li ci des nag man xam naa ko gisaat naa Modou Lo gis naa am Baldé ok guddi yi ñu toll am na mbër moo xam ni bu doon ñetti mbir lañu joxe ci làmb ji ñaar yee ngi ci moom <laughs> ma wax ñëwal waaw yaa ngi may topp ba ma sës dee du la ma wax làmb ji ku féetee kaw mm. guddi yi ñu toll non ma wax guddi yi làmb ji ku féetee kaw maa barki alxuraan bu la neexee ma wax la ba wax la ki naan bu arbi néewoon pirit buur wax waxtu bi xoj na ma waaye ñëwal li xew li nga xamante ni moo xew. sama Doudou bàyyil ma wax la ku féetee kaw. guddi li ñu toog tàng te boo fi tàngee dara bu bële bi day ñëwaat. baal gis nga Modou Lo digg ginaawam gi. Hmm. en dafa ni. rond seen naa. Hmm. Modou Lo ca rond ba. mu taxaw di xaar. ma ne ko looy wax amaa mu ne ma bu yoree saret na ko làbbali ok suñu wax méngoo na waaye ak lu mën a am Ama Baldé ak son staff dee ñu ngi may dégg Ama les jeunes na liggéey waat ah oui même Modou am na lu mu ñàkk ci combat bi te gars yi Doudou ma wax la ki féetee kaw ci kombaa bii Ama Baldé Modou Lô ma wax la mën naa la wax ba wax la kii daan teguma ko ci gisaane de teguma ko ci ay sëriñ dama ko teg ci xam lam xam kan mooy Modou Xarañ Lô Doudou Modou Lô ma daje woon ak Paul Maurice Doudou Modou Lô ma danoon euh, ma daanoon Balla Diouf du lu Modou ma nga xamante ne que moo dajeeg Eumeu seen ñaari yoon daan du lu Modou ma daanoon les deux du lu Modou ma daanoon Papa Sow Modou Lo mi Modou mi ma xam du dama ne guddi yii am lu mu ñàkk ci lam naay maa ko wax. Modou am na lu mu perte ci bis bi waaye nag am na lu mu téye ci bés bi. ok am na lu mu ni nakk téye. waaye am na lu mu perte du lu Ama Baldé hmm. ma daje woon ak Baye Pël hmm. bàyyam taxaw fii ñu naa ko gintee cere ak ndawal mu naan suba kale bi du lu Ama Baldé moomu am na lu mu am ci lamb ji ba téye ko ci loxom hmm. waaye loo xamante la nga am na loo xam ni ba tey mu ngi koy jeex te tëggu ci loxom te bés bu ci tegee loxom ndam li Franc ni du dégg nga wala ma waxaat. dégg naa la. Hmm. am na lu mu téye ci loxo bi. Hmm. am na lu muy wër. te li muy wër bés bu ci tegee loxoom ndam li ñibbi pikin dul leer na. wax naa lépp. lépp bàyyiwuma dara. dara. départ naa ak ñoom ca fii ba. Hmm. ba jéggi baara yi. ñëw Banjul wax naa arrivé ñeenti mbër yëpp wax nga arrivé ñeenti wax naa la Papa Diouf way biir pecc ma xool